jaajëfal nañu leen ci ànd beeg bés 221 HD ni ñu koy defee saa su ne rek di leen indil ay xibaar ginnaaw mbir mu daywaar waar ma nga xam ne moo xewoon foofii ca Maabo waaye itam dal ca meer boobee nga xam ne nag bëgg naa dem teewali gox boobee nga xam ne moom moo di Maabo waaye itam fas yéene dem ca pincum de réew ma ca jamono ba nga xam ne nag ma ngay amal li nga xam ne moom moo di ay campagne am ñi ngi wax ne violence daal di dafay judd ñu xaañ ko li nga xam ne moom di xeer loolee itam nek violence bo xamni ñi ëpp ci Sénégal yi ñi ngi koy ñaawlu la ko waral nak du leen luddul dul maire bobé nga xamni nak amal campagne bi dafa digoon li nga xamni nak mo di ay mbir ñooñee nga xamni ne yëngu ci walum newetan way itam ab école ba nga xamni ne mo nek nekk foofii ca dëkk bobilé lolé nak mu di yoy di fuko ben ap yoon waral nak ndaw ñi dal di mer ci jamono ba nga xamni ma ngay beral cant ak ngiram ko kookee nga xam ne moom moo di Anta ci la ñu jékki-jékki gis li nga xam ne moom moo di aw xeer dar ci kanamam mu nekk nag loo xam ne ñu ëpp ci Sénégal yi daal di nañu koy ñaawlu waral nag génne nañu benn communiqué daal di tere lépp loo xam ne yëngu-yëngu newetaan la foofee ca fa nga xam ne moom moo di Maabo la ko waral nag du leen dudul jafe-jafe boobee nga xam ne am na waaye itam dal ci maire boobee nga xam ne dafa digee loo xam ne defu ko benn yoon waral nag sax ndaw ña daal di mer jëlu xeer daal di koy sànni mu daal di ciy jëlee li nga xam ne moom moo di gaañu gaañu kon nag jamono ji tembe ñuy wax ak yéen tere nañu fa bépp activité boo xam ne nawetaan la moo xam loo xam ne dafa jëm ci li nga xam ne moom moo di sport daal di nañu koy tere foofu nga xam ne moom moo di stade municipal bu Mabo